Don euh, ciow li nga xamné euh, fan Sénégal Sénégal xam euh, semaine bu ak la tay xew jamono yi nak moy la te di jamono di émission bu Bobé, ak propos malheureux yi nga Imam Sall tenir na fofé émission doon jur taw lu rëy jamono ji rawatina ci communauté euh, musulmane euh, ak euh, lépp li nga xam ne ñun dañu ko sekk ci lu baax sunu digganteeg la communauté chrétienne catholique oustaz Maodo fay waaw xam naa man de li ma ci wax sax mën naa bañ a bari ndax ñaari nit li muy def profession di ci yëngu da ca waxtaan di ci def conférence di ci def tafsir di ci wax ak nit ñi ñaare rëq-rëq bu lay dal foofu la lay dale ndax loolu ca nga ne nit ku nekk nag li ngay yëngu ñaare ci ngay juumee ci ngay waxee loo xam ni itam xëy na euh, dootoo doo euh, boo ko kiwoon doo ko waxaat mm. waaye man gannaaw gi damaa dégg moom ci boppam mu def benn audio jéggalu mm. jéggalu communauté euh, chrétienne bépp wax ne daal loolu ay kàddu la yoo xam ni xëy na jublu ci woon loolu mi ngi leen di jéggalu gannaaw gi nag CNRA CNRA moom il fait son travail ñoom parce que euh, ñoom ñooy contrôler li nekk ci rajo yeeg télé yi ñoom tamit Ibrahima Bakhoum dégg ngeen kàddu yi mu wax. Hmm. ba ñu def mettre en mise en demeure boobu ñu def euh, Walfu TV que sax ñu ngi leen di ñaan ñaan ñoom ñu jéggalu publiquement ci beneen beneen émission bi di ñëwaat. Hmm. ñu wax ko publiquement pour ñëpp dégg ko et d' ailleurs euh, communauté chrétienne bi tey ji sax ñu ngi jànloog taskatu xabaar yi tey hmm. yaakaar naa 9h30 la woon sax fële ci Allée Papa Gueye Fall abbé yi dana daje foofu waxtaan wala ñen yoon ni ñu waxtaan ci mais yaakaar naa ñoom itam la leen yëkkati rek mooy moytandiku yu mel noonu comme ça cohésion sociale bi nga xamee ne yàgg na ci Sénégal ñu bañ a fexe daal ba perturber ko jàmm ji gën a yaatu parce que Sénégal da ngay wax ak kii fekk ne kii xam ne kii chrétiens yi ak ak jullit yi en ci yenn parti yu baree bari surtout ci sudu pays bi ay mbokk yu baree baree bari dañoo dañ ci am ak jaxasoo te comme réew mi nii la ko yàlla bindee wax dëgg yàlla bëgguñu mu am benn jafe-jafe mais xam naa ne njuumte la rek ak rëq-rëq làmmiñ boo xam ne bi xam naa ne sëñ Lamine tel que ni ma ko xamee même bu fekkee li mu wax njuumte gu rëy la xam naa ne rëccu na ko te mi ngi koy jégalu itam. d'accord jërëjëf oustaz Maodo Faye euh, euh, bu weesoo jégalu yi euh, dafa di li tax mu gën a choquant c'est pas la première fois à chaque fois def naa liy yóbbu woon nit ñi foofee ci boobee émission dañ doon waxtaanee li ngeen nekk di dox boobu ak léegi. muy loi criminalisant et cetera wàllu homosexualité ak yoyu wàllu homosexualité lu ci indi sax ba ci bolé ay franc-maçon ba ci dem di déraper di ci bolé ki c'est-à-dire que finalement combat bi day mujjé déraper mhm. ñu dem ci benen euh, glisser ci benen sens bo xamné ne kenn du mhm. comprendre mhm. parce que tout simplement communauté catholique d'ailleurs ñu ngi leen ndokalé ndokkale puisque ñu ngi dugg ñom ci sen mois de carême tay le mardi gras euh, di leen ndokalé bu baaxa baax et on est fier de notre cohabitation entre musulmans et chrétiens ici au Sénégal té dara duñu ko yakal légui bu wesso lolu encore une fois jéggalu yi c'est bien mais bu bu bo dëkkee ci jéggalu di mm. répété yenn erreur yi ci mm. jéggalu finalement day doon tayeef dëgg la am na solo lool Nicolas jërëjëf xam naa masawu sëñ Lamine bu fekkee njuumte moo tax mu wax ko euh, ku juum moom moom nit a ànd Eh, jot naa audio bu mu jégguloo comme ni ko sëñ Maodo waxee waaye nag eh, eh, li Nicolas wax itam daf cee mat a bàyyi xel lool mooy plateau bi nga xamante ne fa la sëñ Lamine defee njuumte loolu bu fekkee njuumte la ndax moom ci boppam sax nee na yëgut fu mu waxee wax joo xamante ne jublu na ci blessé wala tudd ci aw nit naka sudut noonu waaye comparaison boobu nga xamante ne moo fa am maanaam li ñuy wax ci wàllu sàmm jikko yi di wax ci wàllu LCBT nangam sàngam yooyu di wax ci yoo xamante ne jikko yu yàqu la ci pénc mi am na façon waxin boo xamante ne nii mënoon na caa bañ a am donte mom position libre na ci amna na sañ-sañu wax ne euh, combat bi sàmm jikko yi di di xeex moom d' accord ci ci façon bi ñu koy xeexee loolu wah sañ na ko sañ na koo wax ba pare sañ naa dem ci plateau yi sañ na koo layal waaye nag euh, maanaam maanaam gasum ñam bi kuñ ci yoori goj da ngaa bi bu fekkente ne li ngay wax da ngaa yem rek ci côté boobu rek la woon tey jii problème am waaye amna na yoo xam ne boo leen tuddee tudd ñeneen ñoo xamante ne ci geneen diine lañ bokk te li ko waral mooy waa sàmm jikko yi wax ne ñun ci combat bi mm. nga bëgg ne wërta ànd ak nangam sàngam baat yee ca aju yëpp aju ci loolu mën naa bokk ci li nga xam ne dañuy indil fitna ci penc mi te soxlawuñ ko moo tax bu fekkente ne euh, jubluwaay bi moo nekkoon rek euh, joxe position ci biir joxe position mu am ci ay njuumte hmm. njuumte loolu ko dal mën na maa dal mën naa dal keneen mën naa dal képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog aw nit di wax hmm. maa ngi ñaan ñi nga xamante ne ñoom la kàddu yi jëm ci ñoom hmm. ñu jéggal ko jéggal mboolem ñi nga xamante ne mën nañoo yëkkati kàddu yoo xam ne mën naa taal am réew mën naa indi fitna ndax ñun niñ dëkkee dafa rafet fii ci suñ kër gii rek boo ñëwee fekk fi ñu baree baree bari ci njaboot googu wal fajri gam ko waxee boo demee fekk fa noonu sëñ Maodo mi am ciy xarit boo demee sëñ Lamin am ciy xarit ñu am ci sax ay mbokk suñu diine nañu laa yanhaakumullahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddiini wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul na ñi nga xam ne bokku leen ak ñoom diine te tooñuñu leen reyuñu leen fitnaa luñ leen terewuma leen ngeen am ak ñoom jàmm terewuma ngeen baax jëm ci ñoom terewuma ngeen joxe leen worma te ngeen maandu ndax yàlla dafa bëgg ko maandu kon

Euh, parce que peut-être da une euh, affaire u farla qui mhm. est euh, oustaz Maodo Faye encore une fois c'est parce que ce n'est pas la première fois Moi vous bu lu lu nit yi dinañ ok c'est la première fois etc mais sans arrêt di joxe exemple ci musulman chrétien ci yenn xeetu sujet yu délicat il faut il faudrait un instant que ñu ñu sévir sévèrement aussi pour que kenn bañati xalat di di dugg fofu waaw lool motax ñu créer général xam nga général looloo tax ñu créé koy d'ailleurs ñum agir nañu bind nañ. Euh, bind nañ jëmale ko ci wal fajiri yaakaar naa ni sax de loolu comme am na euh, waxtaan nañ itam ak ñi nga xam ne ñoo doon animé ani émission le yaakaar naa ni man pour man coow li jeex na. amoon na bi ok donc foofu foofu ngeen ko kal <laughs> jërëjëf mbokk yi kon ñu ngi ci di en direct ci YouTube bi ku ci bëgg réagir puisque réaction yaa ngi wadd kenn ku ci ne am nga ci sa xalaat ak sa gis-gis li am ba am mooy euh, puisque CNRA ak. kilifa yëpp a ngi jóg ñu ngay wax communauté chrétienne waaw communauté mhm. chrétienne ñu ngi def déclaration également ndax ils sont très choqués euh, également amna na yeneen kilifa yu wara def ay déclaration ak i jóg euh, ci liile pour mu dak lolé am amna am solo dinañ xol ba xam fu mu mujjee da nga fa am lo bëggoon waaw waaw moy laata laata général di jóg sax diñu diñu diñu ñu tégaat ci yoon mm. dama japp né média yi ci bopam ñoo wara a njëkk ci yoon ci yenn yi mm. plateau bu toll non nit waru fa wax kàddu yu toll mm. euh tambulé ko ci ki nga xamné moy animé émission bi bayyi kàddu yu toll noonu muy jall té jëluñu ci position buy wane ni kii li mu wax ëpp na am na loo xamante nii kii def émission bu nit ñëwee wax ko fa wax ju toll noonu ci saa si am na taxawaay booy taxaw dana oyofal ñi nga xamante ne dañoo jàppale dañ leen a tooñ beneen bi ci des tam débat bu nekk dafa am lu ko tax a jóg am fu mu war a yem bëgg a lëndëmal moom képp koo xamante ne moo la tax a dugg ci mbir la nga fay jaare rek mooy jaare fa lëndëm yow ba faaw mhm. bëgg a ñàkkal solo loo xam ne am na solo la nga fay jaare yow mooy jaare fa ñàkk solo ba faaw mhm. débat bi lu lu lu leer la woon mhm. wàllu ngi doon débat ndax criminalisé wax ndax waxuñu biir sàmm ko yi ñii ñoo ci bokk ñii ñoo ci bokkut mm-hmm. bëgg leen a déstabiliser wala bëgg a ne li ñuy xeex du xeexu diine mm-hmm. wala bëgg a ne li ñuy xeex am na lu ko gën a ñor lam lay indil rek mooy indil la coow loo xamante ni dana toll mbaa ba kumba te mm-hmm. fekk te mënoon na ko jar bu fekkoonte ne mbir mi yam na foofu yéene ju sellut bu dugalee mbir ci nit fam ciy mujje mooy yu mel nii moo ciy am donte loolu kenn yéene ko kenn